وإن لك لأجرا غير فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم سالمين صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ginnaaw bi sant yàlla subhanahu wa taala ñoo ngi jéggalu ci retard bi ci tardement bi du suñu sabu amaana ay mbir la yoo xamante ni moo xaw na lënk ñoo ngi ci jéggalu yàlla subhanahu wa taala di si jéggalu ñi nga xamante ni suñu mbokk jullit lañ kon ñoo ngi jéggalu képp koo xamante ni yaa ngi teew si si jotaay bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala li nga xamante ni moo ñu fi dajale ñu ñëpp yàlla na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko defal ñu li nga xamante ni moom mooy dégg ak toog kon su ko defee comme waxtu bi xaw nañoo xot dañuy dugg si si thème bi li nga xamante ni moo tax ñu daje fi thème bi nag thème mu ñëpp la képp koo xamante ni jullit nga yaa ngi seede ni amul benn buur ku dul yàlla te di se te di dëggal ni Muhammad yàllaa ko yóbbi thème bi di ci gis sa bopp thème bi nag mooy l'importance de connaître et de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mooy njëriñ li nga xamante ni mooy xam ak topp ki nga xamante ni mooy gën gi mbindeef mooy Mohammed sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy suñu thème bi tey ki ñuy defal thème bi nag kenn du ko présenté ci gox bi ñu nit sax amaana ay ndongoom lañ ñu taxaw ci kanam oustaz dina diis ñun lool waaye dañuy sant yàlla subhanahu wa taala suñ demee ba ñemee fii di taxaw wala di yore micro amaana oustaz moo def ci ñun lii dañ koy ñaan yàlla subhanahu wa taala li mu mbëbët yàlla subhanahu wa taala mu defal ko ko moom nag gox bi je pense que ñëpp xam nañ ko képp koo xamante ni yaa ngi ci quartier bi xam nañ ko képp koo xamante ni mbokk nga aussi xam nga ko kon moom mooy oustaz Saïd Ly moom moo ñuy defal li nga xamante ni mooy thème bi kon olof Njaay day faral di wax ni nit ki soo amee gan nag liñ koy tere la rek leen rek la mooy ñu jox ko ay nopp kon ñun nag du duñ ci ay gan sax ak oustaz waaye nañ fexe ba daal di déglu ñu jëfe aussi ndaxte li am solo ci mbir mooy ginnaaw ba nga déggee nga def sami'na wa ata'na dégg nañ topp te jëfe ko kon loolu ñuy ñaan lépp képp koo xamante ni yaa ngi fi di ñaan nga déglu ñu bàyyi xel oustaz kon su ko defee dañ koy jox kàddu bi mu dugg ñun si thème bi incha allah kon ustaas tafaddal mashkura ya ustaas
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا واشهد ان لا اله الا الله هو الرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بانزال القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد ان محمدا بلغ رساله القران وادى امانه البيان ونسح الامه ومحو الظلمه وكسف الغمه عن هذه الامه وتركنا على مهجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu tur borom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokki jullit yi noo ngi leen di ziyaara di leen baalu àq di leen baal àq ci weer wu màgg wi nu nekk noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala nii mu nu dajale nii ci keppaar gi yal na nu yàlla dajale noonu ci aljannatul firdaws noo ngi naan sunu borom lépp luñ ko jaamu ci weer wi mu néew mu bari yal nañ ko yàlla nangul sunu tarxiisee yal na nu yàlla jéggal di am mbégte mbokk yi daje ak yéen ci fàttalante importance xam yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye topp yoonam loolu dama jàpp ne tey erreur bi gën a rëy ci àddina bi jullit yi def mooy ñàkk xam muhammad ak ñàkk a topp yoonam li nu dale yépp foofu la nu dalee pour ñu fàttali leen benn tomb rek ñàkk a topp yonent bi li muy jur mooy delluwaat leen jàng taarix ci gazwatu uhud keroog ba yonent bi génnee bi ma mujjee aji ñu ànd ak docteur Ahmed Lo bu ndaw mu ñuy defal ziar uhud bi ñëwee ba ci montagne Uhud fi sahaaba yi nekkoon mu ñuy defal histoire taarix bi xeex bi ni mu dé- déroulé woon mu ne yonent bi fii la génnee boo yéegee ci montagne bi di seen sooroy jàkka yonent bi mu ne yonent bi mbedd mii la génne woon yoon wi mu teel a ñëw fajar bi mu ñëwee yonent bi dafa occupé montagne bi wan jant bi ginnaaw maanaam dafa bokk ci stra stratégie xeex wala football wala lu mun a doon yow mi nga xam ne yow yow yaa yor ngelaw li ngelaw li daf la jóge ci ginnaaw di dem da ngay am bénéfice deuxième bi mooy bul fexe mukk xeex di jàkkaarloog jant bi parce que dafay tàppe say bët doo gis moo tax gis nga chaque jour góol bi nekk ci camp yi jant bi di tàppe ci bëtam yi day bëri lu mu jël ay bit parce que du gis bal bi buy ñëw yonent bi dafa teel a ñëw occupé montagne bi wan jant bi ginnaaw yéeféer yi bu ñuy ñëw ci naaj bu tàng lañ ñëw ba pare jant bi tàppe seeni bët xoolal yonent bi ci loolu effort yooyu mu def teel a ñëw occupé montagne bi ranger armée bi jël ñi yor flèche yi teg leen ci suuf jël gaa yi yor xeej yi teg ci kaw wala mu jël ñi ci kaw ñi yor flèche yi mu jag leen ci kaw montagne bi ñi yor xeej yi mu wàcce leen mu ne yéen ñi nekk ci kaw xeex bi lu mu metti metti bu leen wàcc lu ngeen mënta gis lu leen fi mënta fekk bu leen wàcc bi xeex bi déparé tuuti ay minutes jullit ñi commencé gagné rek yéeféer yi commencé daw ñi nekkoon ci montagne bi gis jullit yi nekkoon ci suuf di for màng yi ñi nekkoon ci montagne bi daan ne ñun de buñ fi toogee ñee di for kon duñ bokk ci bagage yi nañu wàcc ki fa yonent bi tegoon comme amir ne leen bu leen wàcc gars yi kenn déggu ko ñëpp wàcc ba mu des ay ñetti nit ñeenti nit Xaalid ibnul Walid boobu tuubagul woon boobu mu ngi ci digg ndawam mu ngi ci digg dooleem mu ngi ci digg kéeféer gi fekkewul woon Badr tey bi ñu ñëw moom moo jiite xeex bi mu ne leen dinaa wane sama njàmbaar tey bi mu séenee ñi ci montagne bi wàcc ak groupe gi mu àndaloon daf leen ne kaay leen ñu wiiri ñu wiiri rek mu yëg ci kaw ñu daal leen di bett nekk seen ginnaaw liñ fa fekkoon tuuti ci kaw montagne bi dañ leen rey daal di wàcc nag daal di tañ ci jullit ñi jullit ñi nekk ci digg bi yéeféer yi feete leen kanam feete leen ginnaaw moo tax yàlla din ko nettali defet boobu keroog lan moo tax jullit yi am ko suñ leen doon laaj lan moo tax keroog Uhud ñu gañe jullit yi lu ngeen di tontu ñàkk a tënku ci ndigal ñàkk a dégg ndigal yonent bi dañuy wax borom kër gi rek borom kër gi su nit ñi déggul ndigalam kër gi du neex même ku jiite société te règle yi mu tëral nit ñi nangu nu ko déggal du dem waxuma la ak nag ku tol nepp yonent sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni ko ci ñun yàlla nenu ya ayyuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul wattaqu llah inna allaha samiun alim yéen ñi gëm yàlla foofu yàlla bi mu nuy woo kaddu gi mu nu woowee moom yàlla kaddu ngëm la nu woowee al iman sunu borom subhanahu wa taala jamono juy wax ak jullit yi kaddu ngëm la leen di woowee abdullah ibnu abbas nee na saa yoo déggee yaa ayyuha alladina amanu mu ne taxawal neel tekk daf lay digal wala mu lay tere barki démb rek jàkka ci njàkka ji loola démb la kaamil yi ñu fa mujjee joxe mooy ñaata yaa ayyuha alladina amanu moo nekk ci alxuraan pour wan leen jullit ñi fu ñu toll mais am na ñu ngi commencé am problème de ñi naan 90 ñi naan 60 wax yi bëri bay bëgg dee mooy kon nit ñi maîtriser wuñ ko ah yaa ayuha alladina amanu cheikh aboubacar jabir al jazair def cee bind benn téere ko tudde ko nidaatu rahman yaa ayuha alladina amanu yi ci alquran yëpp la tafsir tudde ko benn def ko benn téere yaa ayuha alladina amanu yi yàlla mooy woote kan lay woo ñi gëm yàlla lan la leen di doye mu ne bu leen jiitu yàlla waaye bu leen jiitu yonent bi mbokk jullit yi ndax saret dina jiitu fas ah borom fas bi bu dawalee ba caag mu ne affaire bi dafa yii xaaral ma jiital saret bi ci kanam jël fas bi takk ci ginnaaw yaakaar naa diri bi dina métti de loolu nag lanu yàlla di bañal moo tax mu nañu bu leen jiitu yàlla bu leen jiitu yonent bi nekk leen ci ginnaaw yàlla ak yonentam lan moo tax ñu war a nekk ci ginnaaw yàlla ak yonent yàlla mooy digle ne def leen yonent bi mooy wane loolu nuy def nun koy defee moo tax kenn du leen jiitu déggu leen ma de yàlla mooy digle ne def leen yonent bi mooy wane loolu yàlla bëgg a def lu nun koy defee loolu mooy la ilaha illa allah muhammad rasulullah avion ñaata laaf lay am da ngeen woor xanaa da ngeen woor da ngeen xiif avion ñaata laaf lay am ñaar loolu mooy laa ilaha illa allah muhammad rasulullah mooy ñaari laaf yi ndax avion mun na am benn laaf dinaaw moo tax munoo wax laa ilaha illa allah kese ne sama yoon ci muhammad rasulullah munoo wax muhammad rasulullah kese ne sama yoon ci laa ilaha illa allah danga naan laa ilaha illa allah yàlla rek lañ war a jaamu muhammad rasulullah muhammad mooy wane nu ñuy jaamoo yàlla loolu moo tax xam importance yonent bi am solo parce que mënoo dudd diine sans yonent bi moo la jàngal ni ngay jaamoo yàlla mënul nekk moo tax mu sonn pour nit ñi xam nu ñuy jaamoo keroog ci arafaat ci aj gu mujj naaj baa ngi tàng yonent bi ñàq bi def koo wër bay siit sahaaba yi xool ko ci naaj bi ni mu tàngee moo tax yenn saa yi nga dégg fii ñuy jooy tàngaay fii daa tàng waa Dakar xéewal gi leen yàlla defal xamuñu ko su ngeen duggoon léegi dëkk bi fii ay Tamba ay Bakel nga gis nit ñi dañuy woor ba ngoon di xëm ndax tàngaay barki démb sama sœur def ma woon ne ma ñaanal leen ñu parce que météo nee na tey fii 45 degré la moo fi nar a nekk tàngaay dëkk yoo xam ne màggat yi kenn duñu woor te fii rek la ci Sénégal ñu ñu nekk fii biir Dakar kenn du woor nga xam ne da ngay woor ba ngoon sax doo naan ndox da ngay woor ba ngoon doo naan ndax sedd gi mu sedd te terewul nit ñi duñu woor loolu sant yàlla la keroog yonent bi naaj bi dafa tàng saaba yi xool ko ñaq bi di sotteeku ci kawam ñu dem jël benn kaala daa di takk bant ci ñeenti côté yi ñu jël ñeenti sahaaba ku nekk ñu jox ko benn bant na ko téye ñu tiimale ko yonent bi ndax tàngoor bi wàññee ma nga naan leen tey mooy aj gu mujj gi haazal hajj hajjatul wada aj gi mooy aj gi nga xam ne damay tàggatoog yéen xool leen ma bu baax xool leen ci man nu may jaamoo yàlla amaana fii ma taxaw ak yéen dootuma fi taxawaat xuzu anni manasikakum xool leen ci man nu nuy jaamoo yàlla sallallahu alayhi wa sallam waaw ndax kon dina yellati yonent bi nenu xool leen ci man nu nuy jaamoo yàlla ñun ñu bàyyi yonent bi yonent bi ne sallu kama raaytumuni usalli julli leen comme ni ngeen ma gisee may julli kon est ce que dina yellati ñu baane fi yo- yo ñukk yonent bi di def leneen mbokk jullit yi yiw ak taraanga àdduna yiw àllaaxira moo ngi nekk ci jullit boo xam ne moo ngi topp sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam falam yabqa sabil mustaqim yasilu alabdu bihi ila rabbi ala bayinatin wa nuur wa yanaalu bihi almagfiratu wa ridwanu illa sabilu rasad sabilu asrafi almursalin wa xaatami alambiya muhammadun alayhi salatu wassalam mbokk yi amul benn yoon bu fi desati bu jub yoon woo xam ne bu ci jaam jaaree daat ne coow jëm ci borom bi tabaraka wa taala yoon woo xam ne yoonu leer la yoonu njub yoon woo xam ne bu ci jaam jaaree yàlla jéggal ko yoon woo xam ne bu ci jaar bu ci jaam jaaree yàlla kontaan ci moom lu dul yoonu sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam benn yoon boobu dong moom la nit jaar jub moom la jaam di jaar am ngërëmal yàlla adduna am njëggalal yàlla alaxira mbokk yi ndax bëgg ngeen am ngërëmal yàlla ndax bëgg ngeen am ngërëmal yàlla su ngeen bëggee am ngërëmal yàlla benn yoon dong ngeen di jaar mooy yoonu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mbokk jullit yi kon yoon waa ngoog mu nekk yoonu njëggal yoonu mbégte mu ne amul beneen yoon bu ab jullit di jaar mu fay jaar ci xam-xam bëgg yàlla baal ko bëgg yàlla nangul ko li muy def lu dul yoonu muhammad alayhi salaatu wasalaam mbokk yi tey rek la jullit ñi réere yonent yàlla muhammad waaye démb ñi àndoon ak moom nga xam ne jàng nañ alquran xam nañ li ci yàlla wax ñoom dañ doon wuute dañ doon jéem di góorgóorlu bañ a wuuteeg moom seen lépp nag seen lépp seen tëdd seen yeew seen lekk seen naan seen génn seen solu seen lépp dañ daan jéem a wuut bañ a wuuteeg yonent bi joxe ci ay misaal benn bis yonent bi da doon julli ci jàkka jooju ñuy wax masjidul qiblatayn yonent bi ba mu rukkoowee la jibril ñëw ne ko tourneel yàlla nee na nga tourné jublu masjidul haram sayduna muhammad alayhi salatu wasalaam daal di tourné sahaaba yëpp tourné daal di koy topp bi mu paree julli gi mu ne leen waaw man de dama pare ma gis yéen ñëpp ngeen tourné topp ma gars yi ne ko yow yaa tourné ñu tourné beneen bi da doon julli mu simmi dàll yi sahaaba yëpp simmi seeni dàll bi mu paree mu gis dàll yi rang comme tey suñuy julli vendredi dàll yi ni muy rangee suñu kanam sahaaba yi ne ko waaw mu ne leen waaw moom yonente bi lu tax ngeen simmi seen dàll yi gars yi ne ko yaa simmi sa dàll yi ñu simmi gis ngeen niñ ko doon toppee ñoom dañ doon topp yonente bi mbagg ak mbagg tànk ak tànk lu mu def ñu def ko bi ci gën a garaaw sax mooy yonent bi ànd naag nit su daan faji aajo day ànd ak nit mu yoral ko mbuusu ndox su demee ba sori waa ji day taxaw moom mu jël ndox mi continuer su demee ba séenatul waa ji mu egg suuf def li muy def pare jëlaat ndox mi doxaat ba yegg si waa ji fi mu fekk fi mu ko fekk mu jox ko ndox mi ñu continuer dem xam nga lu doy waar benn bis yonent bi ànd ak waa ji ba bàyyi ko fi mu taxaw yonent bi dem toog di faj aajoom siggi gis waa ji ci montagne bi mu yërndu yonent bi loolu buñ ko defoon tey fii benn kilifa luy xew ku bàyyi woon ba sa kilifa dugg ci biir toilette bi nga ñëw fi ñuy rot fi ñuy def caabi ji nga yërndu naan nii su génnee luy xew ah su génnee day reetaan day kontaan ci yow ah lu muy def day mer ok yonent bi waxul waa ji dara dafa ànd ak waa ji ànd ak waa ji ñuy dox ba ci yàgg mu ne waa ji waaw yow man de fi ma la bàyyi woon taxawoo fa waa ji ne ko waaw yonent bi ne ko dafa mel ne gis naa la nga may yërndu mu ne waaw loo ma doon yërndoo mu ne damaa bëggoon xool nooy toogee su ma mbir mi dabee ma toogee noonu ndax kat yàlla daf ñëw menacé ne fal yaxzaru alladina yuxaalifuuna an amri an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim yàlla nee na nañu moytu wuuteeg yow ku wuuteeg yow yàlla dina ko mbugal aduna mbugal ko àllaaxira mu ne loolu laa bañoon moo tax may yërndu sallallahu alayhi wa sallam kon yonent bi dafa wone lépp naka noonu imaam ali ci naan ndox nee na may leen ma ndox ñu may ko bi mu indee mu teg kopp bi teg teggi teg teggi teg teggi daal di muuñ sahaaba yi ne ko waaw looy muuñ mu ne nii la yonent bi doon naanee moo tax may naanee noonu sahaaba yi lépp la ñu topp yonent bi lépp bàyyiwuñ dërëm amul virgule moo tax sunnaam dara réeru ci sunnaam bu ñuy wax bu ñuy jëf bu ñuy salu bu ñuy tëdd bu ñuy dund amul lenn looy jàngale ci sunna yonent bi bañ na la réer na lépp dafay nekk yonent bi wax nañ nu muy naanee wax nañ sax nu mu doon solee dàll buy sol dàll yi ban tànk mooy njëkk a dugg su koy simmi ban tànk lay njëkk a simmi suy sol yére ban loxo lay njëkk a sol suy simmi ban suy tëdd lan lay def su yeewoo nu muy def suy dugg ci toilette nu muy def suy socc sax borom xam-xam yi limal nañu ne ñaata yoon la yonent bi di socc par jour dara réerul ci moom waaw ku mel nii nag naka tey la ñuy nekk ay jullit xamuñ ci moom dara te léppam nekk fi léppam a ngi fi kon naka la ñuy réeree yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam te kat li tax waruñu ko réere mooy nañu xool fan la tàmbalee ak ñun ndax dañoo toog ba màgget ñu doog ñoo wax yonent bi bi nit ki juddoo ñu annoncé papam am nga doom mu dawee ci kër gi jël taxi ndax yàkkamti bëgg a gis doom ji bëgg a gis soxnaam ndax mucc na wala muccul yegsi day romb soxna si mu tëdd mu jëli doom ji su fekkee ku xam diine la li muy njëkk a def ci moom mooy nodd ci nopp ndeyjoor bi mbokk yi nodd turu kan moo ci nekk est-ce que góor googu ñu ne am nga doom mu daw ñëw jël doom bi suy nodd ci nopp bi day wax allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu ana ana al abi ana abihi loolu la waa ji di wax ci nodd bi ah wa ashadu anna jara umu ah loolu la wax wa ashadu anna ibrahima ndiaye huwa cheikhuhu loolu lay wax lu muy wax lu muy wax wa ashhadu anna allahu akbar liir bi ñaata fan la amagum ba mu commencé dégg turu yonent bi ñaata amagul benn fan de tey jii la judd tey la dégg turu muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey la judd tey la dégg turu yonent bi xamagul turu papaam déggagul turu yaayam déggagul turu maamam xamagul famille bi mu bokk amagul benn làkk bu mu dégg turu kan la njëkk a dégg turu muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu biñ koy tudd ñu ñëwaat imam bi répété même tur bi mu nekk ñaata yoon xale boobu julli jot ñu koy woo ci jàkka ji julli jot na ndeysaan benn waay nee na soo déggee sa téléphone sonné soo déggee sa téléphone sonné sa xel ci lu muy dem su ngeen déggee seen téléphone seen téléphone sonné seen xel ci lu muy nekk mooy dafa am ku may woo ah saa yoo déggee téléphone sonné da ngay jàpp ne dafa am ku may woo da ngay wuyu wala doo wuyu da ngay wuyu da ngay wuyu wala doo wuyu da ngay wuyu boo xoolee ndeysaan ki ngay woo muy ki nga bëgg bu doon Balla Ngom la mu xool rek gis ki mu bëgg la allahu akbar nu muy def day kontaan ci xolam yëg yaramam cawarte c'est parce que ki koy bëgg moo koy woo allahu akbar bu doon xale bu jigéen bi la aussi mu xool téléphone bi rek gis mu bind papa ah day kontaan allahu akbar su doon taalibe bi la taalibe bi portable bi sonné mu gis turu sëriñ bi xalifa général bi direct moo koy woo lan lay yëg day kontaan ah ok bu doon membre de parti bi la membre parti bi mu xool gis président de la république moo koy woo moom mi nga xam ne ci parti am la bokk nu muy def waaw yow bi nga déggee turu ki nga bëgg kontaan nga bi nga gisee sa turu sëriñ kontaan nga bi nga gisee turu président bi kontaan nga mu ne moo tax soo déggee jàkka ji di nodd na nga yëg ne yàlla moo bëgg yow nga wax ak moom kon da nga war a kontaan da nga war a mer mal asa am na ñoo xam ne bu ñu déggee asalaatu xayru min an nawm dañ naan an nawm xayru min assalaa waaw ndeysaan xoola ki nga xam ne bi mu déggee woote bi rek dafa jël téléphone am bi mu déggee yàlla di ko woo muy diis diis lu di diis diis lu waaw di gëmmintu gëmmintulu am na ñoo xam ne sax pour bañ a julli fajar dana leen jaral ñu ne du ma xëdd de du ma kenn yee xëdduma dégg ngeen li ma wax xëdduma nag xëdduma xam ngeen ñooñu di bañ a xëdd lan mooy seen problème bañ a julli fajar kase ndax xam ne bu ñu yeewoo xëdd danañ julli fajar te moo tax bugg dañoo bëgg nelaw moo tax dañ naan xoola bu ma kenn yee kër gi yëpp yeewu nga gis almaluun awil maluuna tëdd ci lal bi di bërëngu du nelaw de ndax bir wi yooyu doo mën nelaw mais bañ a julli gi dong moo tax nga bëgg a créer nit ñi ay problème naan ba ba kenn yeema waaw ba ngeen yeema rek dan nañ yàlla jubal ñun suñu problème mooy respecté nañ kilifa yëpp bëgg nañ kilifa yëpp waaye yàlla ak yonent bi mooy problème bi li ma wax léegi-léegi xoolal ma ne koo gis téléphone am sonné mu xool gis turu kilifa day kontaan da nga yëg ne kilifa googu moo lay woo waaye bi nga déggee yàlla di la woo noo def ndax yàlla ak nuy woo wala woowunu surtout nag côté jigéen ñi woor di dajalay julli di tardé fajar amul naafila amul zikr amul jàng alquran woor rek toog mel ne ndaal muñ duy ndox mu toog waaw néew na ci jigéen ñi ku yeewu 5 heures du matin di naafila néew na ku ci jàng alquran néew na kuy def azkar sabaax masa loolu musiba la mbokk yi nit bu bëggee yàlla dafa war a feeñ ci moom daf ko war a jëfe daf ko war a dund daf ko war a wax rawatina muhammad dafa am sahaaba bu bëggoon yonente bi bu tudd sawbaan hadis baa ngi ci bulughul maram foo ko fekk su yonente bi jógee mu jóg bu yonente bi simmee dàll yi mu ne ko cas téye su yonente bi gestoo mu teg yonente bi xool ko xool ko ba ci yàgg ne ko sawbaan mu ne ko la bay mu ne ko yëg naa ne yow ku ma bëgg nga mu ne kenn warantewu ko mu ne waaw doo xool loo bëgg ma ñaanal la yàlla defal la ko allahu akbar xoolal tey loolu buñ ko waxoon kenn ci ñun waaw ah bu yenente bi téléphoné woon léegi balla ne ko balla ko njiɗɗa balla loo bëgg an ko min de mi resan tawa ustad baaxum ko jiɗɗa sowona debbo a kumba ko jiɗɗa ne mi dañantawa allahji a allahu akbar tey jii bu ñu yonente bi woowoon ne lu ngeen bëgg day gis ku ne man day jigéen la waaw na amaguma jëkkër jëkkër rek ñaanal ma ko fii tëfli ko fii tëfli ko fii day gis keene dégg xale bu góor la mu ne non man amaguma 4-4 quoi amaguma kër wala mu ne dama bëgg a dem dëkk ba quoi dëkk ba ban dëkk du wax màkka de fu muy wax ah gis nga xale yi sax xam nañ fi ñu bëgg a dem li waa ji ne bu ñu doon lotiré bu ñu doon lotiré ay billet ñu teg billet États-Unis billet Italie billet Espagne billet Màkka dañuy jiiroo yi ba pare daan ne ban moo des ñu ne Màkka ñu ne xanaa moo des xaaral ma jël ko rek balaa may am gàcce inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk yi sawbaan ne yonent bi man de li ma bëgg lenn kese la yonent bi ne ko lan la mu ne ko asaluka murafaqatuka fil janna man de dama bëgg ànd ak yow aljanna nii ma yàlla dimbalee ma ànd ak yow ci àdduna dama bëgg nga ñaanal ma yàlla ma ànd ak yow aljanna allahu akbar yonent bi ne ko loolu day mënuma ko dugal la aljanna mu ne yaa mu ne loolu mënuma ko waxal leneen soo bànne yonent bi loolu dong laa bëgg bëgguma leneen bëgguma leneen li ma bëgg daal mooy dugg aljanna yonent bi ne ko kon a inni ala nafsika bi kasarati sujud maa ngi lay ñaan nang ma julli lu bare bare bari boo buggee dugg àjjana da ngay julli lu bari loolu mooy jumtukaay bi aljanna kër la mu am yoon mu am ay sabab yoo xam ne moo tax soo ko defee nga dem dugg fa mbokk yi kon dana jaadu ci ñun ñu jël yonent bi alayhi salaatu wasalaam teg ko sunu kanam jéem a xeeñtu ay njubam lépp loo xam ne moom la nu indil ni ko yàlla waxee ci alquran wa ma aataakum rasul fa xuzuu wa ma nahaakum anhu fantahu lum leen indil ngeen jël lum leen tere ngeen bàyyi maa ngi leen doon wax sànq fi xale bi commencé dégg turu yonent bi fan la ba mu juddoo ñu jële ko foofu indi ko ci biir kër gi imaam bi ñëw di ko tudd loolu la imaam bi répété waat bi su tudd bi ci nopp yi mooy lan Muhammad xale boobu bi mu commencé mesure mën a julli mën a jàpp dem jàkka ja su bilaal bi di noddu ci turu Muhammad moomu lañ koy woowee wala bilaal yi ci jàkka yi bu ñu noddee ba egg ci tur Muhammad seen tur lañ fay dugal tur kan lañ fay dugal Muhammad ci biir julli gi ngay taaya ñaata ci ñun fii tey ñooy taaya toog ci biir jàkka wala seen biir kër di julli boo ne atahiyaatu lillahi tayibaatu salawaatu lillahi assalaamu aleykum lay wax ayuha nabi soo waxee ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu xoolal fi fi nga commencé ak yonent bi même ci biir julli gi sa julli du wér lu dul nga wax turu Muhammad julli gi jeex nga tël nga sëlmal suñuy xutba minbar juma foog ñu wax turu Muhammad bu ñuy takk sëy foog ñu tudd turu Muhammad bu ñuy suul ku dee foog ñu wax turu Muhammad gis nga néew bi bu ñu koy dugal ci biir dañ naan bismillah ala millati rasulillah xoolal léegi nag waa ji fii la commencé dégg turu yonent bi di dund di dund ba am 70 ans loolu yëpp mu ngi dégg Muhammad mu dugg biir bàmmeel bi mu deewee ba ñu suul ko nit ñi wane ginnaaw malaaka yi koy laaj yegsi daa di koy won benn jëmm ne ko maada kunta taqulu ala hada al abdu muhammada loo doon wax ci waa ji war na tontu wala warul tontu war na tontu wala warul tontu lu tax war na tontu ndax daf koo yàgg dégg ba mu nekkee liir ba mu nekk xale ba mu nekk grand ba mu nekk paa ba mu nekk maam ba mu dee muy dégg turu Muhammad mu ñëw ci biir bàmmeel ñu ne ko Muhammad mi nga doon dégg loo xam ci moom allahu akbar gis ngeen moom dong la ñuy laaj bàmmeel du ñu laaj suñuy papa du ñu laaj suñuy yaay du ñu laaj suñuy maam du ñu laaj suñu kilifa du ñu laaj suñu mbokk du ñu laaj deret du ñu laaj askan du ñu laaj xeet du ñu laaj dëkk kenn dong la ñuy laaj mooy Muhammad soo ko xamee bu la malaaka yi waxee loolu nga ni kuntu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu wa annahu jaana bilhaq min indillah soo waxee loolu ndeysaan benn baat la ñuy dégg ci kaw asamaan mu yuuxu naan sadaqa abdi sama jaam wax na dëgg lalal leen ko lalu aljanna malaaka yi buux bàmmeel bi ndeyjoor buux bàmmeel bi càmmoñ indi lali aljanna yi daan lay lalal daan lay xool nga leer naññ ñu ne la nelawal nelawu séet nelawal nelawu séet xam ngeen séet xamu leen séet séet dafa am ñaar dafa am séet bu góor am séet bu jigéen séet mooy ñaar ñi ñu maye ba ndaw si jóge kër baayam dem kër borom këram guddi yu njëkk yooyu mu fa def ku ñëw lu muy wax ana séet bi ndeysaan foofu guddi yooyu dañ lay neexal buñ lay yee ndànk lan lay yee ni lañ lay def nii ndànk suñuy fëgg bunt bi ndànk lañ koy fëggee dañ lay rootal ay ndox ngay sangu ñu lay defaral ndékki ngay ndékki ñu lay defaral añ ngay añ ñu lay defaral reer ngay reer ñu lay lalal salal di la balel sa néeg parce que lan nga parce que dañ lay neexal allahu akbar ci boo fa defee trois mois six mois buñ lay yee nan lañ lay yee bu ñuy fëgg bunt bi bu ñuy wax sa tur dañuy yuuxu xale yi sax xam nañ ko ndekki allahu akbar xoolal seet premier jour yi dañ koy neexal ana seet bi di day nelaw ne ne jógal sangu jógal lekk loolu rek lañ lay moo tax sooy nelaw li tax ñu lay yee mooy jógal ndékki jógal añ jógal reer ndeysaan allahu akbar malaaka yi ne la nelawal nelawu seet waaye bu fekkee dañ laa laaj xamoo ko ñu ne la maza kunta taqulu ala hadha al abd muhammada waaye loo doon wax ci muhammad ah nga dégg waa ji ndeysaan parce que bi mu nekkee ci àdduna xamuloon Mohamed ñoom Messi la xamoon Messi Ronaldo la xamoon Balla Gaye la xamoon Modou Lo Bombardier ñooñu la xamoon waaw simbkat yi la xamoon gaynde yi ñoom ñànk très bien waaw ok doy na nag waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf nag jërëjëf léegi yow biñ la laajee ñooñu nga xamoon ak musiciens yi rappeurs yi xamoo woon yonent waaw théâtre kat yi nga xamoon ñi doon xas yàlla ñu ngeen saaneex barki dem dafa def vidéo di xas yàlla yéen ñëpp gis ngeen vidéo bi moo ngi fii sama portable naan yow yàlla ku jara waxal nga yow duma la jullil dara yooyu ma la jullil woon jël ko ne ñi ñi ngay may ñi ngay may nañ la jaamu nañ la jullil seetaan ngeen vidéo bi dinaa leen ko tagal incha allah loolu jaadu na ngeen defa ne ci réew moo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman woor ba ngoon war a ñaan yàlla yàlla jéggal leen ñuy attaqué yàlla mbokk yi suñu laajee waa ji xamul yenent bi moo ñuy nettali waa jooju ñu laaj xamul kan mooy yenent lan lañ koy def ci biir bàmmeel yenent bi nee na fa yudrab dinañ ko dóor suñ ko laajee ba pare xamul lu muy tontu xam nga waa ji lu muy wax ah ah la adri la adri malaaka yi ne ko la talayta wala darayit xamoo yàlla boo xamati yonent bi ne la waaji fa yudrab bi matraqatin min hadid bayna uznayhi buñ ko laajee ndeysaan tontuwul malaaka mu ne xawma malaaka yi ne ko xamoo yàlla boo xamati tukulóor yi ñoo naan a anda yàlla hata andu hoto ganda haalane allahu akbar yonti bi nee na waajooju dinañ ko dóor mu yuuxu yuuxu boo xam ne ñépp ñooy dégg yuuxoo mi ba mu des nit ak jinne lan moo tax ñu dóor ko ci biir bàmmeelam parce que xamul woon yonent bi ah ndeke ku xamul yonent bi ñu dóor la wee boonu góorgóorlu ñu jàng yonent xam kan mooy Muhammad lu yomb la suñu buggee xam yonent yàlla Muhammad rek nañ ñëw ci alquran nañ ñëw ci sunnaam jeex na lépp luñ ci jàng lu mu mën a doon ñu jëm koo jëfe jëm ko dund loolu kese mooy xam yonent bi waaye nga nekk borom kër nekk xale ba màgg nekk jullit daraay yonent bi xamoo ko dara dara dara daraay yonent bi xeeñcu woo ko sunnaam waxi noppi dina ma jaaxal tey nakal nit di waxee ne man dama bëgg yonent bi te bëggoo sunnaam léeg-léeg kenn laaj la waaw ne la waaw sikkim yi lu tax ngeen koy yar nga ni ko loolu day sunnaay yonent bi la yonent bi moo ne góor boo amee sikkim bu mu ko wat ah man daal man daal vraiment loolu moom ah man de duma ko def xanaa yow da ngaa bëgg yonent bi ah waaw tey ñu bëgg Messi da ngay gis ñu koy toppandoo di solal mayoom yi am na benn mbër bu fi watu woon benn watu bu garaaw ah jërëjëf boo yëpp xëy def ko am na ci koo xam ne dañ ko dóoroon kurpañ rek R4 bi teppeeku mu band ko nit ñëpp xëy band seeni bët di toppandoo di ko toppandoo waaw bu ñu toppandoo ay mbër toppandoo ay footballeur toppandoo ay woykat toppandoo ay théâtre kat toppandoo ay fecc kat waaw ndax jarul ñu toppandoo Muhammad te kat toppandoo Muhammad farata la du sunna de yàlla moo ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yàlla moo ne ñu yonent bi na ngeen ko toppandoo ci lépp nag ci lépp yàlla nee na yonent bi royukaay la dañ ko war a roy dañ ko war a toppandoo xool ko ci dundinam ci nim doon dundee ci këram ci ni mu doon dundeeg soxna yi ci ni mu doon dundeeg dëkkandoo yi ci ni mu doon dundeeg njaboot gi ci ni mu doon dundeeg nit ñi lépp dañ ko cee war a roy ci ni mu doon jaamoo yàlla waxi noppi amul lenn lu ndaw ci diine wala lu mag lu dul yonent bi taxaw na leeral ko jàngal ko jàngale ko ba nga xam ne nit ñi buñ ko bëggee def kenn du sonn benn yahud dafa ñëw ci abu darda mu ne abu darda ndax yonent bi jàngal na leen lépp mu ne waaw diina ji yonent bi jàngal na leen lépp mu ne ko waaw waaw bàyyiwul dara mu ne waaw man de damaa bëggoon a xam ndax jàngal na leen su ngeen di dugg ci toilette naka ngeen di duggee mu ne yonent bi nee na sooy dugg ci toilette boo ñëwee ba ci bunt yi waxal bismillah allahumma inni a'udhu bika wal khaba'is allahumma inni a'udhu bika wal khaba'is nga daal di dugg mu ne boo duggee ban tànk ngay dugal yonent bi ne tànk càmmoñ mu ne boo duggee bul jublu penku bul jublu saw sharriqu aw gharribu bul jublu penku kenn du dem ci biir toilette di jublu penku moo tax duus buñ koy tabax dañoo war a woo technicien mu xool parce que waroo jublu penku waroo jublu saw waaw sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ak lan mu ne ko yonent bi nee na booy génn balaa ngay génn da ngaa tuur ndox wala da ngaa tuur dugub sooy defaru na nga defaroo ndox soo amul ndox nga ut këyit soo amul këyit nga ut xeer na nekk ñett xeer wala ñetti bant wala ñetti këyit waaye ndox a gën waaye léeg-léeg nga dem foo xam ne mun nga bañ a am ndox waaye yooyu yonent bi ne na nga fompoo mu ne bu mu am xurma bu mu nekk kayitu alquran bu mu nekk lu lu sacré lu am turu yàlla moo tax léeg-léeg nga gis ay journaux yoo xam ne day naaw ci mbedd yi fekk turu yàlla mi ngi ci alquran a ngi ci lépp lu am turu yàlla kenn waru koo bàyyi ci mbedd mi muy foloti ci mbedd mi di naaw mu ne yonent bi nee na na ngeen moytu yax yax ndax yax jinne yi ñoo koy fompo ñoo koy lekk soo ci fompo jinne yi bu ñëwee xiif jinne bu fekkee yax ci àll su ko jëlee muy yax su ne bismillah mu fees dell ak yàpp mu lekk su fekkee nefere mu toog wow koŋ su ko tibbee ne bismillah day nekk pain au lait mu lekk mu ne ñett ñaar yooyu bu leen ko fompo mu ne sooy génn ci toilette boobu na nga jiital sa ban tànk tànk ndey joor soo génnee ba ci biti nga wax lan gufranaka alhamdulillahi allazi azhaba anni al aza dina ji bàyyiwul dara ñun la ñun ñoo fi nekk di taxan nekk ay taxankatu guddi xam ngeen taxan guddi mooy ku tëdd ba minuit ñu ne la jëlal saak bi jëlal sémiñ bi demal ci àll bi uti mat 3 heures du matin soo fa demee di gor ay matt di teg di for matt yu wow yi teg man ngaa fekk ay dem àll ba yu wow kong nga ni ko cas dugal ci saak bi man ngaa fekk jaan ju lemu nga ni ko cas dugal ci saak bi lu tax parce que guddi nga dem loolu mooy taxankatu guddi mooy bëgg a nekk jullit te xamoo jullit day jàng jullit day xam yàlla jullit day xam yonent bi jullit day xam islam waaye boo xamul da ngay nekk taxankatu guddi mbokk yi da ngay jël rek di raatale di dugal sa biir saak doo xam li ngay def baax na wala baaxul. xoola keroog laaj bi mbokk mi laaj ci jàkka ji laaj bu doy waar mu ne waa ji daa woor feebar dem hôpital ñu bindal ko ordonnance ay comprimé mu wann comprimé yi ne ndox mi bokk ci. doomu primé la jël doom yi rek wan na ne damaa woor quoi moo tax xaaral ndox mi ba ma dog loolu nga def rek ku jàng diine dina ko def keneen ki moom ñaar yëpp la boole ndox meeg comprimé tuy tam lu xew dama woor damay naan garab yàqul koor garab la garab lii garab la ba pare bëgg cee xeex nag garab la garab laa naan wow ban diine la ñuy dund ah loolu yëpp lu ko waral mooy ñàkk a xam léeg-léeg ñu laaj la laaj yu doy waar yu yéeme yoo xam ne xale yii nga xam ne ñooy jàng jardin mën nañ ko waaw xale yu ndaw yi xale yu ndaw yi xam nañ ko nga gis kilifa gu koy laaj waaw borom kër guy laaj loolu waaw keroog benn jigéen ne ma man sama jëkkër yaakaar naa ne daal xamul nu ñuy jullee ma ne ko lu tax mu ne ndax dañoo julli gee mu julli ñaar ràkk sëlmal ma ne ko un diw ñaata ràkk lañ julli mu ne ñaar ndaw si xam ne jëkkëram xamul gee ñaata ràkka la allahu akbar xoola nga nekk borom kër xamoo gee ñaata ràkka la inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu loolu fuñ ko teg diine ji mbokk yi nañ ko gëstu nañ ko jàng kenn ci ñun bu mu wax ne mag laa ndax yonent kat bi mu amee ñeent fukki at la ko yàlla jàngloo te yéen ñi toog fi yëpp kenn amu ci ñeent fukki at wala tuuti wala lu ko ëpp tuuti rek nga ko ëppal yonent bi mu amee 40 ans la ko yàlla xool ne ko lan iqra jàngal tey jii yéen a ngi ni toog benn jigéen buñ fi yóbbu mu dem sëyi mënul togg trois jours lañ ko may quatre cinq septième jour ya danaan ko demal nga wuy ji sa yaay d'accord ngeen moo tax xale jigéen yi ku ci am sept ans yaayam commencé ko dugal wàññi pour mu mën pour bu demee du delsi waaye kuñ fi toggaloo salaat nga tay ko mbaa nga baxal ko su ngoonee nga ñibbi loolu asalaam
alhamdulilah